père Babou mi daa mel ni vacciné wu na ba pare Balde père Babou maa ngi lay ziar. maa bu baax. mbaa nga jàmm. sant bu baax. vacciné wu nga ba pare. waaw bu pare naa defe naa ko pare. Hmm. looy wax waa làmb tey parce que tamit yaakaar naa ne lii dañ ne mooy solution bi tax ñu waat waaw parce que bu ñu nee solution la pour mu ñu tax ñu bëriwaat wax nañu dëgg parce que nit bu wérul du mën a bëre. te lii dafa bokk ci li ñu yaakaar ni mooy indi sunu wér-gu-yaram. kon bu ñu waxee loolu yaakaar naa wax nañu dëgg gu wér. Hmm. mbër yi loo leen di wax parce que euh, mbër yi surtout mbër yu mag yi nga xam ne ñoom tamit euh, defe naa ne ñooy ñoom ñooy les VIP lan nga leen di wax. mbër yu mag yi nag euh, ñi ci bari man jokkoon na ma ak ñoom mee bi ma jokkoo ñoom dañu wax ni ñàkk nañu ba pare. kon ñoom yaakaar naa ne dañ leen cee fekk mais mënoon na rek ci bis bi pour pour pour pour réyal bis bi taaral bis bi waaye comme ñàkk nañu itam ñàkk bi rek lañ ci soxla. waaw Balla moom gis nañ ko mu ñàkku sa mbër. Mm, Balla ñàkku na. Sa Thiès ñàkku na ñoom yëpp ñàkku nañu ak yeneen i mbër yu bari ñàkku nañu ah. Uh-huh. waaw parce que man maa maa ngi doon woote mbër yu bari bu ma leen woo dañuy wax ñàkku nañu ba pare waaw. kon nga ne d'ici quelque temps mën na ubbiwaat. lii passé. waaw mën na mais noo ngi ci nawet. te lamb bu boo duggee nawet euh, itam euh, war a bëri ji ñu dem ba jub lamb ja taw bi soobit day indiwaat yeneen i problème Euh, beneen affaire la na ñu ñaan yàlla rek euh, yaram am bu wérgu yaram amee rek daañu trouver solution bu wér. waay kon daal su ma la déggee maanaam saison bi kon comme na dug na ñu ngi mois d'août jëm septembre mën nañ bàyyi ba weer yooyu passé kon saison bi door a ubbiwaat. waaw da làmb daana am nawet daana am nawet mais xaj na léegi ni làmb di tëddee yaakaar naa tëgg ko nawet dana risque la. bu rëy la mais làmb da am nawet da am noor da am heure bu ne amul làmb daawul tëj. te jamono yii làmb soppi ko rek la làmb di li tëj mais làmb warul warul tëj mhm. waa am na solo jaajëf Père Babou kaay. ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar daa mel ni nga ba pare. waa ñàkk naa ba pare yàlla dogal na leen ci kàttanu yàlla ñëw naa sànq sama carte moo nekk nii euh, ngir gis ne kenn ku ne ci euh, nii rek nga war a def parce que bu dara it euh, lu lu jàmm rek jàmm ko gën. ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ni ñu ñëwee mobilisé wu ñëw sama borom jàppale ñu bu baax a baax ba li nga xam ne lii nii ñu ko nit ñuy dégg ñëpp di ko dégg ci àdduna bi sama borom faaga ko génn ko fi ak nu mun a que loo gisee da ay nett rek la waaye daal jàpp naa ne ci kàttanu itam nit ñi ñëw nañu en masse gouverneur daje na ma ak moom fii léegi xamal nañu ma ne ma ci kàttanu yàlla maag Gaston Mbengue ñoo bokk dugandoo ci saal bi léegi xamal nañu ne lii bu dakkulee bu soobee yàlla lekk lépp dellu soir ci kàttanu yàlla ak jàmm ak salaam mooy pikiru kàttanu yàlla takk masque laal sel bu ca bis ba amee boo am bis amee itam bis bu mag ñu am amee distance yi yi gu docteur yi wax am naa yaakaar ne bu ci yeggee bu soobee yàlla yàlla mën naa dogal di des tuuti rek ñu ubbi affaire yi ci kàttanu yàlla. waa amaa nga Europe yooyu itam kenn mënta dugg Europe te doo ñàkk wuloo ama day ñàkku fii Sénégal doo ko dem bu yeggee balaa dem fenn dañ ko ñàkkaat moom ñaari ñàkk lay moom moom ñàkkoon na bu yàgg-yàgg lu jiitu loolu. waaw kon daal fi mu nekk nii kon yéen pare ngeen waaw pare nañu bu yàgg écrit bi yëpp ci kàttanu yàlla ba xam naa ne ci kanam tuuti xëy na du am na ñuy war a ñëw ndax ku mel ni Jules Baldé na leen indi ñoom ñëpp ñoom ñu nekk si ak suñu secrétaire général wax naa leen ko ba nañu mobiliser wu ñëw dama yaakaar sax ba ñëwee fekk leen fi waaye am naa yaakaar ne ñu ñu yaakaar naa ci kàttanu yàlla bu lépp matee daal fi lekk fan am nañu yaakaar incha allah ci li dégg jàpp naa ne euh, léegi affaire yëpp ubbi ñu dellu ci suñu ci suñu ah, kon de bu ubbee xam naa ne yéen a ngi pare pour décembre rek waaw ñoo ngi combat royal la boo xam ne bi Sénégalais yëg ko ko bëgg ñu ñaan laf cat yàlla lafar ñu ci cat ci kàttanu yàlla bu ñu yegg ak cak jàmm lépp mat ci kàttanu yàlla waaw ndimbal yërmande kontaan mu mel ne Assane Ndiaye lañ jàkkaarlool borom Baol production gis nga nag bëriloo na ma fi ba sama yaram tàng mais c'est normal mu mel ni tey ñëwoon nga vacciné ba tee sa carte nii Assane maa ngi lay ziar non lu na fàng kenn du ko jeex da ngay wane sa bopp na lii bokk nga ci yaa ngi dégg da olof Ndiaye dana séddale ca kuddu yu njëkk lii dañoo gëm ne ñun làmb ji dañ si bokk dañoo gëm ne làmb ji dañ cee dañ ko dañ ko dañ ci war a par dañ ci war a participer yaa ngi dégg di encourager Sénégal yëpp di leen wax ne lii amul benn problème yaa ngi dégg xelu nit nag doomu aadama boo ko yàqee ragal loo ko loolu baaxul yaa ngi dégg nañ sant yàlla bu baax ndax lii dañ ko war a dem jënd fay ci lu bari pour am ko ñu defal ñu ko gratuite kooku sant yàlla ñaan yàlla nag réew mi yàlla def ci jàmm def ci wér ndax loolu rek moom solo di wax sénégalais yi lii amul ngaañ man gëmuma ne benn sénégalais dina jël lu bon di ko dugal ci réew mi di ci lor ay doomi sénégalais gëmuma loolu. lu toll ni président. gëmuma loolu wallaahi asi même bu doon ministre sax moo ko fi indi gëmuma ne ab doomu Sénégal dina lor moroomam man li ma gëm rek laay wax mais jël doomu aadama bu war a am doom war a wér. war a gudd fan nga ne ko lii boo ko jëlee am problème bi du ko jël mi ngi noonu mais nag nit ñi nañ gëm yàlla xam ne suñ borom pare na day démb tey soog a ñëw dalaa daa njëkk a bind jour bi ngay dee ba pare soog laa bind jour bi ngay dund comprendre nga nañ gëm yàlla wóolu ko te wallaayil asim wér lu ko waay jënde jar na ko. te ku feebar da ngaa war a faju nag sax. a faju te nañ gëm ne lii amul benn problème. wallaayil asim yàlla na. problème. yàlla na yàlla def jàmm ñu comprendre xam ne lii amul benn problème nan ñëw ñàkku si ñu dawalaat suñu làmb yi événement yi jolli Sénégal jëm kat. làmb ji jax yaa ma gën a. Baol Production jaajëf. jam sa doomu ndey daa ñàkku si de. Pape Sarr da ngaa si wala. waaw damaa ñàkku si moom. kon daa mel ni yow daal li gars yi wax waa làmb dafa mel ni ay citoyen piir lañu. waaw ànd naa ci de muy remercier nag suñu président Bira di nuyu suma doomu ndey jamaïcain Mm, man nag dafa am tiis bu dal sama kaw muy suma ndijaay di suma rakku yaay muy Samba Sarr. Ah, ñu la koy jaale. waaw Samba Sarr maa ngi koy maa ngi koy jaale Pikine yëpp. waaw di ko jaale Sénégal di massawu nag waa Pikine lii moom lu baax la quoi. waaw parce que man tax def nañ si vidéo ñun ñëpp ñoom Jamaïcain Reug rek mbër yëpp. xam nga lii du dara man bugg naa ñàkku ñàkkuwaat sax. bëgg nga ñàkku ñàkkuwaat laal Johnson bi benn rek doy waaw non bàyyi ma def ñaar man ñaar laa bëgg laal waaw waaw laa ñaar ndax du diis Pape ñëpp daal ñu ñëw xam nga waaw ñu jàppale daal président bi daal ni mu wax ñu kii comme lii tey mooy moo fiy génnee mbas bi ñu fexe fexe lii dañ mu mel ni yow waroon nga tëgg dimanche boobu ñu dàq sa làmb loolu tamit nekkoon coup bu méttee méttee métt trop lépp ku xam ne ne euh, feebar ko métti na trop ñun dañuy fàtt suñu bopp mais man chaque jour mbëri laay masaw man chaque jour rek damay masawu mbëri parce que ñun togguñu woon ay añ mais mbëri dañoo toggoon ay añ li may lancé waat si président ak nguur gi mu ñu mu dimbali ñu ci ndàmpaay ñun tamit ñu am lu ñu teg ci loxo mbëri daal. waaw may gërëm nag tey kilifa yi nga xamante ne tey ñoo fi nekk tey jiituñu ci mbir mi muy suñu papa Gaston Meng Thialis Pape Abdou Fall euh, Fallou Ndiaye Jamaïcain Ama Dia ñoom Dieye ñoom ñëpp. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax waaw pour ñu booloo daal ñu nekk benn. ànd. ñu ànd nekk benn. waaw nañu ànd loolu. mooy doole de mboolo ñu ànd nekk benn ba pare ñuy waxtaanee ndoo lépp léegi lii nii ñu def nii keroog réunion bi nii man daal rafetlu naa ko daal. nii la CNG war a doxalee. waaw kon réeroo dootul am. waaw jërëjëf jërëjëf. jam yow yow laal nga Johnson ana mu ngi jàpp Johnson bi loo ci wax ak ñàkku bi. Oh, Johnson bi beneen affaire la Babacar. beneen affaire bu mel. maanaam boo ko jëlee sax man tawarte gi may sentir nii <laughs> mbaa lii jàmm de li ci gars yi di wax amul de. c'est ah. vrai te dégg naa baax gi mu baax surtout si yow bu yéen borom soxna yi. bool bu ñu ko jiñ neel baax na ci ñëpp rek. bu fi am nga yow sa sabraxas day foqi bool nag. mooy lan. ay boromi soxna ak boromi ko amul borom ñaari soxna yi dégg naa pour wér gu la pour aaro la waaw dégg naa borom Johnson bee baax si borom ñaari soxna yi te moo tax yow bi nga ñëwee gis naa moom nga laal waaw moom laa laal waaw waaw di nga gis njëriñam nag <laughs> yow it amoon nga journée waroon tëg baay bu ñoon xoyantaan mu nekk coup bu metti waaye lépp rek wér gu yaram gi defe naa daa ëpp doole lépp ah waaw man ñaari journée ndax amoon naa journée bu gën a jege si la 14 août maa waroon a tëgg Pape Ndoye Abou Ndiassé Cheikh Super Jamono maam Mor bu Faas Siteu bu Ngor Franc Mbeur euh, Sibor Alliance Balde euh, euh, nu mu tuddati Milkizo jeex jàmm jël ay phénomène boo yoo xam ne kenn ku ci nekk day feesal stade ñu booy leen pour le 14 août tey yaa ngi ci 3 août moom nu ko waxoon jamono ji ñu ngi naan source moins 10 covid bi tax ñu annulé ko bàyyi ma doon xoyantaan gis nga combat boo xam ne léegi tey man ñaari at mënagul am lépp ngir corona bi kon su demee ba solution am ñu yaakaar ne boog vaccin bi àdduna bi yëpp am nañ yaakaar ne bokk na ci li fi mën a jëlee corona te ñun corona tere ñu def suñu liggéey na ñëpp ñëpp ñëpp def ko pour ñu mën a continuer suñu activité loolu moo waral tey ñu bokk si ñu doon sensibiliser nit ñi pour ñu ñëw munoo woote nag toog sa kër yaa fi war a jiitu te biñ ñëwee bokk nañ si njëkk a jël vaccin bi ndax nag àdduna bi gëm yàlla nañu bàññi di déglu ñoo xam ne li ñuy wax amuñ ci benn xam-xam. ay yàqkat rek lañ. ay yàqkat di wax di influencer nit ñi di dee te mënuñ si indi benn solution ñooñu jëruñ ñuy déglu li ma gëm man di ko wax mooy jullit bu nekk ak doomu aadama bu nekk war nga am gëm-gëm ne bu ñu jëloon poson sax piqûre ko sa biir yaram bu duggee day soppeeku ndox bu kenn ku nekk amoon gëm-gëm boobu rek coono du bari waaye nit ñi léegi dañ leen di influence ñuy déglu ñoo xam ne li ñuy wax amuñ si benn xam-xam. ku mën a xam li nekk ci vaccin bi kay mën ñu indil solution buy faj corona. nañu waxante dëgg su fekkee tey adduna bi dañ jël loo xam ne baaxul ci doomu aadama yi ñu koy doomu aadama yi nit ñi di ko jël jël ko ñu koy jël gënuñu la gore. bu ñuy dundu ñu dund bu ñuy dee ñu ñoom ñu dee. <laughs> yaakaar naa ku teg ay pexe ba ñi ñëpp dee nga des fi yow kenn yaakaar naa. dañ fi weddee. billaahi bëkk yeeg gaynde dinañ dem màbb dugg ci dëkk bi lekk la ba nga jeex. yaa ngi kon yenn yi jërul ñu koy def suñu bopp ah. ñun nañu muy yow muy man kenn ku ci nekk fii buñ la ñàkkul toqal nañ la toqal xaw ma bàyyi nga ko xelam de. waaw man toqal waaw. te yaakaar naa loolu gën a ñàkkit jël naa ko dëkk ba. jël affaire toqal ko nga naan ko. boobu jël naa ko jël naa ñàkk. jël ñàkk ñun ñëpp a ñàkk suñuy papa yi ñàkku nañ bu doon ñàkk di rayee dee nañ bu yàgg. leneen ni nag ci mbiru yàlla nekk ay ku ko jël booy góor doo doo am doom doom yàlla koy joxe am na ñu jëlul benn ñàkk te yàlla jënku leen ko am na ñoo xam ne ni tey Babacar am nañ ay quatre-vingt-quatorze ans billaahi wallaahi wa taala yàlla dina ne ay bant ba léegi ay góor yàlla kon loolu ci mbiru yàlla nekk lu nekk ci mbiru yàlla doomu aadama mënu si dara yàlla bi nga fiy ñëw bind na la ne Babacar lii ngay am lii ngay am lii ngay am ay ñàkk yi mënu ko soppi yaa ngi dégg ñàkk yi yëpp ñuy wax yàlla mën naa def buñ ko ñàkkee bu ci ku ci nar def beneen pexe mu toog fii ngay ñàkk mu génnaat kon na ñi ñu am ngëm gëm boobu ñu ñëw ñàkku feebar bi jugee koo fi ñu continuer suñuy activité loolu si la ñuy woote wat lamb te CNC ak gouverneur déclaration bu ñu def fii lu am solo la kon nag bu kenn tardel sa bopp mbër mu ci bëgg a bëri demal nga ñàkk ci amateur yi noonu promoteur yi noonu ndax dem nañ sax ba ne promoteur bu ko amul doo régler sa combat hmm. ah c'est ko amit tamit doo wax jarul journaliste bu ko am kenn boo ñëwul làmb yow la te nag journaliste yéen yéen ay dugg fu nekk ku nekk yéen a koy interview dañoo war a vacciné wu a a njëkk a vacciné wu campagne bi yéen a ko war a njëkk a def na nit ñi vacciné wu lillaahi wa rasuuli ñu sóoraale suñu yaay nekk ci kër gi sóoraale suñu feebar bi jugee fi ñun amuñu loolu am ñun amuñu salaire duñu ay député duñu ay ministre làmb la ñu am ñu tëjee làmb ngir corona su làmb ji du ñu liggéey te sonn nañ kon lillahi wa rasuli na gars yi dem jël vaccin bi ñu ubbi lamb ji ñu continuer suñuy activité Sénégal jëm kanam Sénégal jëm man loolu laa ciy wax Babacar maa gën a kontaan si yow Amadia nag dégg naa ko mu naan vacciné woon waaye ñun amuñ ci preuve mu ngi nii sa waaw laaj ko ko laaj ko laaj ko ko vacciné wu yow ah! man moom man ba may vacciné wu yaakaar naa du ñaaxarañ la preuve ma ba may vacciné wu yaakaar naa ba mu waxee na na na nu vacciné wu maa njëkk a vacciné wu promoteur yëpp promoteur bi fi nekk maa la moo kii day wax rek nee naa la preuve ngi nii carte d'identité ja moo ngi de moo kii maa ko njëkk fa laa waaw tamit Amadou si ja ba tey wax nga dëgg CNG dafa wax rek ñoom ñëpp ñu jog man avant CNG yow moo président ba mu waxee si laa jóg fagaru di féliciter waa CNG nag bu baax a baax Bira Sène wax dëgg yàlla def na liggéey bu am solo jox na communication bu extraordinaire ñëpp jóg promoteurs yi amateurs yi mbër yëpp jóg man dama ñëwoon pour amaat beneen mais waa ji ne ma mënoo amaat beneen ndax vaccin yi ku ko jël da ngay am lo non Johnson bi nee la sentir naa sama yaram loo ne mosuma ko sentir ma ñëwaat waa ji ne ma mënoo jël beneen mais bu nekkoon sama sago damay jëlaat beneen non déggoo lu ma la lamb ji laa bëgg mu ubbi na gars yi ñëw vacciné wu te xam ni vaccin te yaakaar naa suñ ko deful suñu lamb ji di ubbi ñu sauver journée yi fi nekk yëpp muy Gasson Pape Abdou Fall Pape Thialis combat yi mag yi lit ñu ko laa ñu sauver leen quoi ñu ñëw ñëpp vaccin wu ñu ñëw ubbi lamb si jàmm salaam quoi wax dëgg yàlla di féliciter Babacar suba ba léegi maa ngi lay suivre mais yéen kenn du yéen ndax bu nekkoon yéen tey jii lu bari du am da leen di ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fi li ngeen mën ren ngeen mën ko déwén si barke yonente bi siyaar kii mbër la tamit ñëwoon ñàkku si defe naa waroon nga bëree tur bi. bu ngéwél. armée bu ngéwél la yow yaay armée bu ngéwél. waaw waaw noonu la waroon bëree ci su journée Mor Mbaye bi. waaw ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur xam nga. waaw ñoo doon bëree journée bi xam nga ñu dem ba ci jour bi. waaw moom ay quelques problèmes de reliquat moo taxoon journée mujjul am quoi ñu sant yàlla bu baax Fallou Ndiaye tamit joxaat nañ avance quoi pour mën ak Hercule le bi après si la ñuy informé nii Covid bi moo ñëw quoi moo tax euh, journée bu mujjul am waaw mais ñu sant yàlla bu baax di woo nag suñu mbokk mbër yëpp ñu ñëw vacciné wu xam nga waaw ñu ñëw ñaxu ji xam nga buñ ñaxoo bu ko suñu làmb ji mën a tijji parce que ñu bëri ci làmb ji lañ yaakaar waaw ñu ngi ñaan loolu noonu mbër yi ak amateur ak supporters yëpp ñu leen ñaan ñu ñaxu xam nga yor seen i carnet ñu ubbi làmb ji ñu mën a dugg seetaan ñu xam nga ñu bégal leen quoi noonu la demee siyaara ñëpp wér baabar ñu jërë remercier leen ñu docteur docteur dama naan euh, boo bëggee dégg dëgg médecin ki koy doon du du n'importe quelle personne parce que ki nga xam ne mooy faj doomu aadama ay mettitam kooku defee naa ne ku jar a encouragé lañ kon képp kuy di médecin ci Sénégal ñu ngi lay ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm waaye ñoom tamit di leen wax mention spéciale madame maa ngi lay nuyu di la jaar di la wax tur la. Euh, man la madame Diop Nafidja. madame Diop Nafidja maa ngi nekk euh, responsable service social. bu district sanitaire de Pikine nekkaat aussi en même temps responsable service éducation information pour la santé bu district sanitaire de Pikine. Hmm. Euh, tey boo gisee tey vaccin bi dugg ci réew mi ñun ci côté lamb ji lañ nekk waa lamb ñëw ñeneen ñëw citoyen yëpp ñëw di ko def yéen ñi di ay docteur lu ngeen mën a dalale xol nit ñi parce que dafay am ñoo xam ne dañuy dégg ñu naan vaccin boo ko jëlee mu def effet secondaire nangam sangam lii laa yow defe naa ne ci médecine nga yëngu toog wàllum paj loo mën a wax sénégalais yi tey. li may wax euh, tout abord maa ngi nuyu ñëpp euh, di boole cant ak ngërëm nag di wax que ni ñun ça fait déjà dix jours ñu ngi fii di def euh, di vacciner doomu aadama yi sera asun pikin ak képp koo xamante ne sax dëkkuloo ci Pikine mais di dalal xelu nit ñi tamit par rapport ak vaccin yi. di leen wax que ni lépp loo xamante ne ñu ngi ko ciy wax aussi loolu amu ci peut-être ay rumeur la rek vaccin yi su fekkoonte ne am na peut-être effet secondaire yu grave yaakaar na kon nguur gi du ko jël andi ko personnel sant bi njëkk koo jël ba pare ñu war ko wàccee ci askat bi donc ñun ñoo jiitu ci ñi nga xamante ne ñun ñoo jël vaccin yi te ñun aussi ñu ngi fiy toog dara jotuñu macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax kon nag di gën a encourager population yi di wax que ni pour ñu ñëw massivement vacciné wu. te wax leen que ni parce que jàngoro bi Covid 19 mi ngi fi mi ngi fi donc tey jii su fekkee dañoo tegoon respect des mesures barrières gis nañ ne nit ñi aussi mënuñu conformer wu ci loolu ñu ñëw indiwaat vaccination loolu yaakaar naa ndimbal mënu koo weesu waaw. ay askanu làmb loo leen di wax yow da ngay suivre làmb naa ñoom ñëw nañ fii promoteurs yi ñëw nañ fii ay Gaston Mbengue ñëpp ñëw nañ fii. dëgg la gis naa leen ñoom ñëpp vraiment di leen euh, nuyu tamit au passage. di leen sant aussi di leen gërëm ci appui bi parce que lépp lu waay mën a def fi mu nekk nii moo xam secteur ba nga mën a nekk tey jii dimbali ministère de la santé la dimbali sa bopp aussi dimbali tamit sa sa sa peuple. parce que tamit li may wax toujours rek danaa xeex jàngoro coronavirus du ministère de la santé kese moo ko mën a euh, def il faut que yeneen secteurs yi ku ci nekk aussi ñëw jàpp ci impliqué wu ci pour que ñun ñëpp ñu mën a am ndam macha allah fii euh, dootul yàggati. te loolu aussi gis nañ tey jii taxawaayu waa CNG ñëw nañ tey mobiliser massivement di wane que ni tey jii comme ñun ñu ngi ci arène bi ñu ñëw ñoom te indi seen participation def une forte mobilisation jàppale ñu ñun aussi ba ñu mën a atteindre suñu objectif par rapport ak Covid. am nga mbër de xam naa mbër. kuy sa mbër. <laughs> man nag sama mbër moom Bombardier la. waaw ndax ah. sama doom baay la jala sant ko man. jala sant ko waaw. kon xanaa yaa ngi doon xaar ko combat ak Balla Gaye 2. xaar nag mais malheureusement ak contexte bi ñu nekk ñu reporté ko mais di ñaan yàlla rek incha allah rabi liy jóge fi ba ñu mën a reprendre euh, beneen date incha mu yemb si jàmm mu am ndam nag ci kaw. kenn am ndam nag ndax ndax ndax mu am yaa ndam ci la yomb na. ah bañ a yomb fii da ñaan yàlla rek yàlla moom macha allah am na lépp. te lu ko nit ñaan rek suñu borom moom euh, dina la ko may. nañ Balla daa mën a bëre de. waaw ah, dafa mën a bëre waaye nag am nañ yaakaar ñun aussi si suñu mbër. Ah. Mhm. am nga yaakaar ci boppam bu baax a baax a baax. <laughs> merci kon Balde foofu laa koy tëjee ah mu mel ni kon tey noonu la demee lii moo xewoon fi nga xam ne moo di ci CNG bi maanaam wowoon nañ fi waa làmb tey askanu làmb tamit li lay wan na ay citoyen lañu wone nañ ko tey. defe naa ne promoteurs yi ñëw nañu mbër yi ñëw nañu te am na mbër yoo xam ne sax ñàkku nañ ñu balaa lii di am yaa ngi dégg bu ñu gisee suñu papa Gaston Mbengue ñoom Assane Ndiaye Jamaïcain Amadia ñoom Pape Sarr ñoom ñëpp ñëw nañu ak ñoom Eumeu Sène Senior ak yeneen champion menace yi ñëw toog toog ñoom Bourkhane Wade ah waa CNC président bi toog Bira seen ak Maysa Ndiaye loolu moo lay wan nekkoon kon làmb ay citoyens ñoo fi ne presse bi tamit ñëw couvrir lii parce que presse bi tamit dafa nekk benn euh, mbir bi nga xam ne xibaar yi moo koy jàll di ko siiwal te lii dafa am solo trop Babacar tamit ñàkku na sama carte ngi nii kon li may wax mooy ah képp kuy sénégale di sénégalaise demal nga ñàkku ji kii ma toogal médecin la fajkat la li mu wax leer na nañ te defe naa ne xanaa kenn du jël luy gaañ saw askan wala nga di ko lor di leen ko andil te moom mi ba mu ñàkkoog tey yàgg na te kon li ñuy ñaan mooy yàlla na fi coronavirus bi jóge joge ci àddina bi ndax sunu médecin yi tamit sonn nañu te ñoom corona bi sax mu ngi leen di laalaale des fois ba ci yóbbu ay bakkan te loolu yéene wuñ leen ko te la tax mooy askan wi la ñu bëgg a sauver di remercier ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ka ni Sénégal réewum jàmm la yàlla na yàlla saxal jàmm ji saxal ko ci àddina bi barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam baram balde di la gërëm yow mi ne woon si caméra bi di gërëm tamit hélas bi nga xam ne moo nekkoon ci montage bi di ñaan senegal yal na fi yàlla def jàmm ba beneen yoon gaay